mbokk yi kuy topp dara danga war a xam li ngay topp lan la moo xam waliyu la walla sëriñ la wala nitu diine la balaa mu laa sant ngay def mu lay tere ngay bàyyi war ngaa xam moom lan mooy jubluwaayam ba pare teg ko fi moom nga jàngi diine ndax moom ku ñu war a topp la bari na ku topp nit yaa ko gën a xam bari na ku ñuy topp xamul dara lu bari ci ñi ñuy topp dara xamuñu ko dañoo fekk rek seen bay nekkoon ñu ñuy top ndax amoon nañu xam-xam ñoom ñu ñëw toog waaw su fekkoon ni benn docteur mi ngi fii du docteur ngeen di wax di faj docteur di faj nga xam ni moom day xar biir opéré lay def bu xaree biir defar ko ku feebar buñ la yóbboo doo ragal da nga naan waaw ndax lan moo tax moom xam na te mbokk yi xool leen biir dagg biir ni mu wóor a lan moo tax nga nangu ñu dagg sa biir parce que dangaa jàpp ni xam na ñu toog juróomi at docteur bi dee benn doomam bu doon gor matt di defar gënn day gor matt di defar gënn di ko yatt di ko jaay nga xëy indi ku feebar ñu war koo opérer ñu indi doom bi doom bi na dañ koy opérer ndax dinañ nangu waaye kii kan la dof loolu oh, dem nga defari say ya yow dañ dogal fii ah loolu wax lan moo tax parce que xam ngeen ni gorkatu gën boo ko joxee ni day gor biir bi <laughs> xamul lu ci nekk moo tax ngeen bañ léegi nag loolu ñu bañ lu tax ñu nangu ko ci côté lu tax subhanallah kii nek na fi nekk na borom xam-xam bu ñuy borom xam-xam bu ñuy déglu lu bari ci borom xam-xam yi duñu jur borom xam-xam loolu baat bu yéeme la sama benn sëriñ def ma musa bindal benn baat bi ma bindalee benn baat mu bindal ma aalim ma ne ko waaw mu ne ma kaay ma yee la mu ne aalim ban xaraf moo ci mujj ma ne ko miim mu ne aalim yalidul malik boroom xam-xam buur rek lay jur sëriñ yi ñi ci bëri seen doom yi buur lañ parce que da ngaa fekk sa papa ñu koy siyaare di ko jox xaalis di ko jox doom yi ñëw du ñu jàng taluñ jàng amuñu jàng ñu bëri ñi toog amuñu jàng ni seen papa sonne woon ba jàng ñoom du ñu ko sonnee xataa ci ñun ñun ñii ku ci yàlla nattuwul boo defut ndànk sa doom du jàng fi nga jaar ba jàng yelwaani sonn jaar fu nekk doo bugg sa doom jaar foofu te pourtant fi nga jaar ba jàng lu metti la mais da nga yërëm sa doom loolu moo tax boroom xam-xam bi buur lay jur day jàpp ne mook baayam ñoo yem mu ne ma bindal Malik ma bind Malik mu ne ma baat bi mujj ban la ma ne ko kaaf mune malik moy jur kafir bur ay yefal rek lay jur ndax ñi muy jur dañoo fekk ñuy santane di def jangi wuñu xamuñu dara dara dara pour ñom ñoo wara nek bur jeexna motax mune bur moy jur yefal moy kafir ma bindel ko waaw mune ma bindal kafir ma bind ko mune ma ban bat mo mujj mané ko ra mune kafir moy jur ra'i moy jur kat ko xamni ni xamul lu bari mom top jur gi rek la xam ut alal jaay jënd to fenk ñu bal ma bu fi nekké mu ra'i ban batay mujju mané ko ayn mune moy jur alim mota borom xam-xam yi ko ci laaj sam papa baykat la won sam papa kat la won vérifier len loolu illa nadiran ngay fekk ni loolu amul léegi nak gis nga ñi jaamu ay nit dunu bayyi xel li borom bi wax borom bi nee na alam tara ila alladina yazcumuna annahum amanu bima undila يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وأن وقد أمروا أن يكفروا به برام بنا خنا جسلون نيغا خامني جاب نيجم گم نانيو دانيو جاب نيجم گم نانيو يالا اي جوليت لاني ndeke yu gëmuñu sax li ñu wàcce ci muhammad ndax jullit su nangoo lu ñu ko ndigal mu def te xamul ndigal loolu fan la tege mooy kooku xamul jullit su nangoo di attewoo ci lu dul yàlla santaane mooy kooku xamul te xam ngeen ni yàlla daf ñoo tere ñu topp lu dul ndigalam daf ñoo tere ñu dégg lu dul ndigalam moo tax mu ne waqad umiru an yakfuru bi mbokk yi baatu tawxiid wéetal yàlla du mat lu dul shurut yi daje te boo xoolee shurut yooyu ñoom ñoo ñëw ci baat bi lay dugal ci islaam muy laa ilaha illa allah baat boobu dina dugal ci islaam nga bàyyi ko xel bala nga koo wax ay la maabuuda bi xaqin illa allah amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg kon ndeke am na jaamu ci caaxaan ku ñu war a jaamu ci dëgg kenn lañu war a jaamu ci dëgg mooy allah subhanahu wa taala am na nag ñeneen ñuy jaamu ci caaxaan mais jaamu ci dëgg nga yaakaar ci jaamu gi ñu fay la ajjana nga yaakaar ci boo jaamuwul ñu yóbbu la safara kooku yàlla rek lañu koy delloo gis nga charte yooyu il faut nga ommatu nangu baatub ashhadu an laa ilaha illa nga seede ni amul benn borom bu ñuy jaamu ci dëgg ku yàlla loolu danga koy seede danga koo war a jàpp ndax baat boobu soo ko xësee ba jàpp waratoo ko sànni ndax baat la boo xam ni moo tax nga gën ku yow baat la boo xam ni moo tax nga am liberté baat la boo xamante ni moo tax nga yilif kaw suuf yow doomu aadama waaye baat bi da koy dëggal muy asidqul munaafi lil kadib baat bi da koy dëggal bañ koo weddi bëri na koo xam ne nee na jullit la mais xamul lan mooy muqtadayaatu laa ilaha illa allah loolu moo tax nekkam jullit waxtu bu nekk islaamam yàqu te du ko xam waxtu bu nekk mu def lu islaam tere te du ko xam ndax dina wax laa ilaha illa allah mais lan mooy laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah lu muy tekki mooy du ñu jaamu keneen ku dul yàlla di nga gis ku jóg di ko wax nga gis li muy jëfee ak li muy wax day wuté jëf bi day wuté ak la ilaha illa allah bi mu wax lan motax moy mom mi ngi wax la ilaha illa allah te yàlla sant ko mu bañ mom day wax la ilaha illa allah ba pare te xam nga ni moy amul ben borom bu dul yàlla ba pare yàlla sant ko mu bañ su len nexé ma leeral mooy ban nit dina wax la ilaha illa allah nga diko deg te bu julli joté du julli bo waxé mune man duma julli ha julli wàcc na ma kan moko ko wàcce ah déet kan moko ko wàcce julli ba mu sañ wax la ilaha illa allah ba pare baña julli lutax boko né do julli mune la wala zikrullahi akbar mais xamul lan moy zikrullah kooku wax laa ilaha illallah woor jot mu ne du ma woor lan moo tax doo woor parce que man ku ma àndal du julli du woor te ki mu wax laa ilaha illallah moo ko ni jullil moo ko ni wooral léegi mu jël ndigalu yàlla sànni ko fële jël ndigalu ki yàlla bind jël ko kooku mi ngi wax laa ilaha illallah mais xamul muqtadayaat yi xamul maanaa bi loolu gis nga yéefar yi démb balaa ñoo tuub dañuy laaj ba mu leer nañ ndax ñoom dañoo xamoon baat yi nekk ci la ilaha illa allah moo tax bi yonente bi ñëwee quraysh ne leen qulu la ilaha illa allah tuflixu bis bu ngeen waxee la ilaha illa allah rek ngeen dem àjjana lu tax yéefar yu bëri bañ xam nañ ni seen kër yi am na ay yàlla xam nañ ni ci kaaba gi def nañ fa ay yàlla xam nañ ni am na leneen lu ñu gëm lu dul yàlla kon balaa ñoo wax la ilaha illa allah na leer lu ñu wax ajaala al alihatu ilahan wahida inna hada la shay'un ujab muhammad ñun dañoo am sunuy yàlla te suñu soxla mënta faju ku nekk am na këram yàlla kaaba gi def nañ fi ay yàlla yu nekk ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak nàngam te soxla yaa ngi fajuwul muhammad ne daaneel leen lépp ngeen jàpp kenn ñoom xam nga ni ñuy gisee ñoom dañoo gis ni lu bëri lu mënul benn mënu ko ndax seen xel fa la toll موتاني نا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب لول موتاخ ني ييخ كو واخ مي بو سيت كو واخ تي نيوم لا اله الا الله دوتول ديلو غيناو لان موتاخ جانغ نكو با خام كو موتاخ شيخ محمد ابن عبد الوهاب دي واخ ني ييفرو ديمبي ньо гэн ييفرو تاي parce que ييفرو ديمبي بلا ني دون واخ دارا دنج كو سيتلو تاي نك ييفري تاي لي اوب mën nañoo génne sax ci biir jullit yi beneen bi baat bi danga koy nangu ñaata yoon ngeen gis kuy wax laa ilaha illallah bàyyi ko ndax alalu àdduna ñaata yoon ñu tukki Europe dem feneen nga dégg ñu ne kii génn na islaam bari na de bari na lool ay jullit doomu jullit am na ci ay sénégalais am na ci ay gambien am na ci ay guinéen am na ci leneen nga xam ni ñii li leen yóbbu Europe moo nekkoon uti alal uti alal boobu ñàkk nañ ko ba tax nañu dem jaay seen diine dugg ci beneen diine ñaata yoon nga koy gis kon baat bi ki ko xës ba wax dara dootul tax mu sànni ko ndax xam na baat bi li muy tekki da bëgg baat bi doo ko bañ mooy laa ilaha illa jullit day bëgg laa ilaha illa beneen bi nga wóolu ko te bañ a sikk waaye nangu mbokk yi charte yi bu dajee ci góor walla jigéen koku bu taxawé jaamu yàlla di nga jaamu ko to yàlla deug mi ngi ni ndax kat hal yastawi alladina wal walladina la yaalamuun ndax ñi xam dinañu nuro ñu xamul du ñu yem mbokk yi kon nak ki xef ba wax baat bi koku dafa yeyo ñu dimbale ko dafa yeyo ñu def ko mbokk koku moy sunu mbokk dafa yeyo ñu def ko xarit suñu ko doon noo néewal doole ñun ñëpp dañoo war a taxaw ndax kat mook ñun benn lañ baat boobu ku ko xës ba gëm te wax ko dootul wéeru ci kudul yàlla borom bi nee na wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu ku wéeru ci yàlla yàlla nee na ma doy la kon yow jigéen bi nga gëmee baatu tawxid sa sëy am jafe-jafe bul dem ci jalan bi déedéet am nga bunt bu gaaw bunt bu gaaw bi mooy jàppul kabar ñaanal yàlla yàlla moo gën a jege sa buumu baat yaa ngi liggéey ci benn société am nga problème jarul ngay dem ci waa ji ne ko defal ma ndax ma dellu foofu déedéet moom munu ko su ko munoon moom mu nekk fa <laughs> walla déet ñaata yoon ngay dem ci koo xam ni néeg bi daa tilim der moo fa nekk ay salte gis nga wañaan kat du nek fu rafet mu bu nekkee fu rafet dañ nan ki du piir wañaan kat wañaan kat pour mu jommal la day nek fu salté fo xamni bo ñew da la eh! mu commencé di wax lo xamul lele mun wa wa lool lan la yow ngay xol fekk dara pexé dong man gisut len, bu dee jinne la lay wax nee du deug yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum giso fi dara da ngay wax mënoo ko gis jinne mënoo ko gis ah lan la soxna si wax lu mu kii nga tiit parce que xamagoo laa ilaha illa allah beneen bi mooy baat bi boo ko waxee nga wéeru ci yàlla mooy da ngay dellu ci borom subhanahu wa taala doo bëgg ku dul yàlla wallahi doo tiit ku dul yàlla loolu mooy tawxid saxaaba yi li tax adduna bi yépp ñu dugg fa fu nañu gañe ko mooy tiit dafa jóge woon ci ñoom xam nga lan moo tax tiit jóge ci ñoom dafa am benn baat bu gàtt ku ko xam te gëm ko dootoo tiit ma sha allahu kaan wa ma lam yasha lam yakun baat bu gàtt la ci wax mais bu ko nit ki gëmee ci xolam kenn mënatu ko déranger ndax yow xam nga ni lu ñëw yàllaa ko dogal xam nga loolu lu ñëwul yàllaa ko tey dootoo tiit soo gisee nit kiy tiit di déranger di daw di def leen mooy dafa gëmagul lan mooy dee mbokk yi xanaa xamoo kenn du yàlla du bind ne altina ngay dee nga dee dimanche loolu du am yàlla bu ne alxamis ngay dee àllarba bu yeboo nañu teg añ bi da gaañ ba suur alxamis rek ngay dee mais pourquoi nag léegi yow nga bëgg ñu jël sa fit tiital la nga dem ci nit mu lay wax loo xamante ni daara nekku ci dëgg mbokk yi dootoo yaakaar ku dul yàlla loolu mooy tawxiid léegi nag boo melee noonu xam nga lu yox xale yi dañoo dëgër bopp xale yi dañoo weddi mag ñi xale yi dañu leen a defar loolu moo tax ku ñu defar mënu koo déranger mbokk yi gis nga ki gëm baat bi dootul wéer mbiram ci kenn mbiram ci yàlla rek la koy delloo ki dul wéer sa mbir ci kenn ku dul yàlla nag ku la bëgg jël def la jaam dangay bañ moo tax umar ibnul xataab doon wax ni matastaabadtumu naasa wa qad waladathum ummahatum ahraar ni gaa yi di def ay jaam la téye la nga nekk sama taalibe altine demal sama tol nga dem sama tool bàyyi sa tool nga bàyyi sa toolu bàyyi yaa ñàkk ful la nga ñëw di liggéey te duñ la fay su la sa dëkkandoo waxoon bayal ma nga ne ko ma fonton lu yaa ngi liggéey ba pare yaakaar ci ajjana kan moo la ko wax ndax foofu la ajjana nekk loolu nga nangu li ko indi mooy at taalluqu bi gayrillah bis boo wéeree sa bopp ci ku dul yàlla rek mu fooye la te war ngaa bañ sa moroomu nit comme yow di la fooye sa moroomu nit kom yow di la nax beneen bi moytul xanaa xamoo kenn du wéeru ci ku dul yàlla lu dul ku dof ku ñorul moo tax ñi nga gis ñu nekk al toppe yépp amuñu xel koo ci waxal danga koy convaincre moo tax borom bi nee na inna alladina tad'uuna min duni illahi ibadun amsalukum ñi ngeen topp yaakaar leen yàlla nee na ñoo ngi yéen a yem de benn kiif kiif kenn demul ba yàlla ne la lii nga yàlla newu la lenn nga yaag man ak yéen ñoo yem ca yàlla xam nga ca yàlla ku fa gën kan la qaa'ida bi inna akramakum indallahi atqakum ben gor dafa nek ci tolam di bay mok domam ay takusan ndokh mi beuri asaman fi rëtëtëti bu waxtu bu nek papam di wax dom bi nan ko serigne diw moy waja serigne diw kay mom ndeysan luma beug daf makoy defal suma jaxle wo ko sax damay dal dom ji nopi rek xam nga lu ko yalla natto Takusan mu taw de nuy retututut ñu génné ci tool bi di ñew bi ñu génné ci tool bi ñew jëm ci fas wi fas wi tit mam du xam ngeen mam fas wi mam dem fasu mam ci ndox mënoo ko dab dom dina ko papa nañu taxaw ci télé bi dox ndank na ndax télé bi xamna ndox mi duñ ci lap papa ji ne ko waaw ñu taxaw ci buntu télé bi seen benn lumière auto auto bi ñew ba ci ñom taxaw bi ñewé ba ci ñom taxaw pa bi yërndu muy serignam serigne <laughs> eh, diw na ngam nako su ku ba ci suuf doom ji taxaw diko xol serigne bi ne ko lo fi def mu ne ko taw bi kat momu xawa japp sama fas yu recc mu ne ko naxantel dank bo xolé ding ko gis yëkëti véru auto bi dem pa bi taxaw ba ci yag ne ko papa mu na mu ne ki nga wax mo lay yëb aljana ah waaw ah, waaw ah, yee ko kay moom moo may yóbbu moom ah yee kii moom mooy yóbbu mu ne ko papa kii fekkuñu ci metit bii ndox bii dënnu bii ubbi otoom ba gis ñu bàyyi la fi papa kii bu dee moo lay yóbbu àjjana nax na la papaam ni ko dangaa dof ba càgg na ko wax nga dëgg de wax nga dëgg de ki ma fekk fii dimbalewu ma sëriñ bi nangul nga dugg ci oto bi tooyal ko bu lay nuyu gant lay sol parce que daa jàpp ne da salte da toroxal su lay ñaanal da lay tufli su lay ñaanal da def parce que amoo fayda xam nañ da ngaa dof lan la lay wax yàlla na nga dee ci taalibe yàlla na sa doom dee ci taalibe yow nga toog naan <laughs> yàlla na ñu dee ci taalibe yàlla na ñu yow yaa ñàkk bopp dëgg dëgg dëgg yow nga war a fexe lu la yokk ngay ñaan lay toroxal. doom di wax ko loolu góor gi toog ba caagal la hay doom li nga ma wax ni dëgg la de xoolal lu mel ni ci la ko doomam yeewee mbokk yi gis nga jullit li koy may chance mooy xam bi muy xam li ñu wax ci moom borom bi nee na wa mattaxasa allahu min waladin wa ma kaana maahu min ilah إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعدهم على بعد سبحان الله عما يصفون يلا كن دوكو أوتل ندند بوكي يلا سبحانه وتعالى أمول دوم يلا بو أمون ينن يلا نين خچو داي أم كو أسمان سو ينن يلا أمون يبوك لك موم تي أسمان خچو داي أم ما جوخ لا مثال nga nek sa keur am ñetti jabar am ñetti jabar kenn ki togg añ ñëw teg sawet nga commencé lekk dégg kenn ki mu naan elage naka démb démb kay sunu fanaan bi neex na de li nga tibb di nga ko wan ah ah wax leen boo moytul li nga set day génn lu tax muy génn parce que buggoo bokkaale benn góor buggul bokkaale jigéen ñi ñu ngi nii bugguñu bokkaale koo wax wujj mu ne la déedéet teel na bokkaale la soo amee wujj rek mooy bokkaale loo amoon day wàññiku bis yoo amoon day wàññiku bokkaale la léegi yow nit buggoo bokkaale nga bëgg yàlla nangu bokkaale loolu xel waru ko nangu loolu moo tax allah subhanahu bëgg ko moo tax mu ne wala ala baaduhum ala baad subhanallahi amma yasifuun kon danañu ëppante doole am ko jiitu mbokk yi am na ñoo xam ni ci mushrikuuna yi dañoo jàpp ni ay mbindeef am nañu dogal fa yàlla lu ñu bëgg mu am am na ñoo xam ne loolu la ñu gëm dañoo gëm ni yàlla dafa am ñu koy jàppale ci nguuram gi nag mbir la bu xóot ñoo xam ne jàpp nañ ni yàlla lu muy def da leen di tàggu ah sama sëriñ moom yi koo koy balaa yàlla def dara yi woo ko koo moom moom ya wi ko kay man kay xam nga nek sa nek di nelaw ndaysan nga japp ni serigne baa ci negam di la xol fekk serigne ba ma ngay xaram di nelaw bu baax ah, yaag moma yam borom subhanahu wa taala neena bu ngeen jappé né amna ñu mëna ñëw ci yalla buy gis limuy dogal ah nañ ci indi lay borom bi ne am lahum sullamun yastamicuuna fiih falyaati mustamicuhum bi sultaanin mubin waaw bu fekkee da ngeen yaakaar ne gars yi dañoo am seel seel ngi échelle escalier ba dañoo am escalier boo xam ne dañuy yéeg ci asamaan gis li yàllay def yàlla nee na nañ leen ko layal te loolu xam ngeen ne amul bu fekkee ne da ngeen a foog ni ñoom xam nañ li yàlla dogal am indahumul xayb fa hum yaktubuun bu ñu xamee dogal nañ ko bind waye defuñ ko de kenn ci ñoom bindu ko am yuriduna kayda falladina kafaru humul makiduun wala dañuy tek ay pexe rek yéefar moy fexe léegi nag nga tok yàlla bala dogal dara wax ak serigne bi yàlla buy ki nangam yàlla neena am yuriduna kayda ndax da ngeen du wut ay pexe di nax nit ñi xanaa xamu len ni falladina kafaru humul makidun moy nax naxkatu nit ñi ay dóorkatu marto lañ mbokk yi ndax nit warna top kenen ku dul yalla ñu bari dañu fitnawu ba sax waxuma la nit mais legi da ngay gis ñuy jaamu ay matériel ay garab nga gis ñukoy jaam beurep fi kat diw dafee jaaron ñu ñew jël beurep bobu defar ko defar ba mu jek xam nga gaay neexul dañu mus nak dañu mus de romb ben taatu dakar <laughs> ak ñu ne sëriñ bi fi fi la tëddoon wa tedd ji taatu dakar lan mo ci rëy lan ba tax at mu nek ñu serigne bi fi la tëddoon kay la ngeen tedd fi ku nek ñew subhanallah mbokk yi gis nga iftitan bobu dal nit ñi muy fitna wu bo xamni ñoko tek seen bop dara dara dara defuko. dem nañu ba duñu xalaat ci li njiit di wax islaam demewut non yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dal na wax sahaba yi ne ko lutax gaay fi bo len ne lutax tax nga am problème kenn xalaatu yonenti bi day wax ba pare ñu ne ko lutax lan lan mo ci ki yonenti bi ne li li li li ñu xam ko sahaba yi dañuy wax seen morom ne len lutax ndax kat nit muntu tëb rek def lo xamante ni da ko ëppale nit ñi mais na wana lan motax tax lan moo tax ñu war koo topp wala leneen kon mbokk yi nit dafa war di xalaat waaye dafa war a bàyyi xel yenn wax yi bàyyi xel yenn wax yi nag bokk na ci léeg nga dégg ñu ne sëriñ diwkat yàlla bind na ko junni at doog a bind jibril xam naa loolu moom ak seegul fii non fii yéen chance boobu am ngeen ko. Sénégal bi yàlla rek. ah kon de garaaw na garaaw na de nga dégg ko la nan jaamu naa yàlla juróom-ñaar fukki junniy at yàlla doog a bind aadama wallaahi naa yàlla juróom yàlla doog bind aadama te xoolal xam nga li gën doy waar mooy bu ko keneen waxoon nga weddi ko lan moo tax kii wax ko nga nangu parce que seytaane laa nëq te laa bës ci ndox nga lab jàpp nga ni ki lu mu wax rek nonu la lolu moy danger bi koku nak bo nango sa yàlla la bo bañee sa yàlla la parce que nangu nga ni lu mu wax deug la li la koy wan bu kenen waxe lu wute ak mom nga xex ak mom gaay li ñu nekk ni boko ko bari histoire motax ma bok ci ñi bari histoire à chaque fois li mu wax li mu nanga dara bëgg yee nit ñi rek wallahi in uridu illa al islaha mastataat wa ma tawfiqi illa billah féeg nag yaa ngi wax lu mel noonu ñu mel ne di jëriñoo nit ñi duñu la mën a bëgg loolu mooy at xaalis yàlla nañ ko ci yàlla may beneen bi xoolal ni ñuy màggalee caaxaankat ni ñuy rëyalee caaxaankat yow bu la sëriñ bi noonu démb araf laa fanaan sax nga ne <laughs> dëgg la de waaw moom kay moom kay moo ko sañ lu mel noonu nga dem yow jullit ba nangu ko yemut ci nga gis loo xamante ni xam nga ni xoolal ci bàmmeel ni ñu ni ñuy ziyaare ay bàmmeel nga xam ni lii shirk dëgg la mais doo ko ñemee wax bàmmeelu nit benn sëriñ Umar Sàll moo dee ñu suul ko nga ñëw tibb ci suufu bàmmeel bi def ko ci siwoo def ci ndox di ko naan yóbbu ko say doom di ko sangoo lii bàmmeelu sëriñ diw la de diw leen sangu leen suñ benn paa tabax këram ma jékki rek gis mu génn benn benn mbuus bu ñu takk def ci suuf di ko wis ma ne ko lan la mu ne hii kii bàmmeelu sëriñ diw la fa ko tibbee mën ne ko xanaa dangaa bëgg kër gi dee <laughs> xanaa dangaa bëgg kër gi dee ku dee mënatul dara kay mota borom bi nee wa man adallu mimman yad'u min duni llahi man la yastajibu lahu ila yawm alqiyama wa hum an du'aihim ghafilun Yalla nee na dof piir mooy ki ñew taxaw ci armel di ñaan ki ñu def ci armel yi ki bu munoon dara du teud fi te xam nga ñaan ku dee ñaar mbir ci nek su fekkee ma nga àjjana déggu la bu fekkee ma nga safara talu la lan la si mën bu dee mi ngi àjjana déggu la bu dee mi ngi safara talu la moo tax borom bi baat bi mu utiliser nañ koy wax wa man adallu yàlla nee na kan moo gën a dof kan moo gën a réer ñu ne ko kan mu ne mimman yad'u min dunillahi kuy woo keneen ku dul yàlla man man nit la man la yastajibu lahu ila yawm alqiyama koo xam ne du ko wuyu ba yawm alqiyama te kat bokoy wo dul deg wa hum an duaihim ghafilun mbok yi xol len jaamu bammel yonent bi da koo teel a ndax xam na ni umma bi dinañ ci daanu yonent bi febar la ci digg febaram lan la doon wax ci digg febaram اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الله اكبر yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu jooylu mu ne yàlla xoola yonent bi di waaj a gaañu mu ne yàlla maa ngi lay ñaan sama bàmmeel bu ñu ko def mukk mukk mukk bërëb boo xam ni dana koy jaamu maa ngi lay ñaan nga musal ma ci loolu mukk yàlla maa ngi la ci ñaan xanaa xamu ni ki yàlla gën a mere ci kaw suuf mooy ay nit yu jël bàmmeel di ko ziyaare su ma nee ziyaare nag waxuma ziyaare dem ñaanal ko mais ziyaare def ko feet ziyaare di fa sànni xaalis ku dee ba li nga ko sànni pour lan la pour ñi dee la walla pour kiy dund ah subhanallah yow kii dee na nga waroon a ñëw nga ñaanal ko nga yëkkati cinquante mille sànni waaye cinquante mille yooyu moom mën na koo jëriñoo su ko defee nag ay doomam naan la góor góorgóorlu leen de góor gi moom lu nekk la mën dee leen ko ziyaare bu leen fa wax na dëgg su ngeen fa gëjul am day dox su ngeen fa gëjee am du dox moo tax mu leen di wax ne bu leen fay gëj kee fa mu tëdd nee laa ilaa kee kay moom du ñu wax nag lu àgg seen wax benn du àgg bu ngeen xamoon li ma xam lan nga xam loo xam yu mel noonu mbokk yi il faut nit ñi yeewu ci moo tax yonent bi ne ishtadda ghadabullah ala qawmin ittaxadu qubura anbiyaihim masajid yàlla mere na ñoo xam ne dañoo jël sax bàmmeelu seen yonent yi def ko jàkka su yàlla waxee yonent ku dul yonent yow yow kon foo jëm yonent buñ ko suulee ci jàkka ku fa julli amoo julli nga gis nag ku xamul dara naan la yonent bi dañ koo def ci am man la déedéet yonent bi suuluñ ko ci jàkkaam néegu yaa Aïcha lañ ko suul te ñaareel bi même law farat naa yonent bi ñu suul ko ci jàkka daa tolloog yow da ngaa xanaa da ngaa bëgg wax ni sa baay daa tolloog yonent bi loolu nga ñu bëgg a gëmloo du ñu ko gëm mukk kon ziyaare bàmmeel mooy nga ñaanal ko soo demee ci bàmmeelu sëriñ yàlla yàlla na nga jéggal sëriñ diw bis boo ko waxee ci kaw gaa yi dóor la ba nga dee ndax ñoom jàpp nañ ni kii warul de kii warul kii moom ma nga àjjana ma nga ca njoowaan ya moo tax benn wax waxkat di wax ni wa yu qabrin yusaar wa saahibuhu finnaari madfun nee na bëri na ku ñuy ziyaare di sànni xaalis fekk moom ma nga safara ñuy wëlbati yàlla na ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal mbokk yi bokku na ci réere tawhid ñu jël fecc def ko jaamu yàlla loolu moom agsiwul fii moom ahankañ bu leen nag bu leen wax ne lu ma wax rek am na fi waaw nee bi laa ilaha illallah kurtu kurtu tëgg di ay nit walla amul gisu leen ko amul loolu diine la pour pourtant ñi koy def pour ñoom du du dara ah. di tudd yàlla allah allah allah tëb kii tëb kee tëb mais nañ ci boole nañ ci boole tama rek mu jeex waaw non fecc dong bu ñu jaaral ci diine la sabar sabar bu ñu jaaral ci diine dong la kon mbokk yi lu mel noonu ay nit di wootewoo woo diine di ko def boo waxee ñu ne da ngaa te ay nit ñiy woote woo diine ñoo koy def nek ci bir jakk diko def wala dajje ci seen xew-xew diko def di fecc ñu jàpp ne hadihi min tamam zikrillah jàpp ne li dafa bok ci tuddu yàlla gu mat sëkk lolu subhanallah mbok yi ana xel yi lan moo tax sunu xel du xalat lolu limu ñuy wan moy jaamu bakkan borom bi neena afaraayta man ittaxasa ilaahahu hawaa wa adallahu llahu ala yàlla nee xoolal ki jël bakkanam di ko jaamu yàlla nee na ma réeral la loolu mooy jaamu bakkan am na ñoo xam ni seen jaamu kilifa bi day toog fecc fecc fecc bu jukko ni groupe sukk loolu mooy siyaara bi jigéen fecc fecc ba ak si groupe sukk loolooy siyaara bi mbokk yi bokk na ci sàkku rammu sàkku rammu mooy talabu shafaa sëriñ bi ñun day bëgg nañ nga yóbbu ñu àjjana sëriñ bi moom kay àjjana yaa ko moom waaw moom kay ku la neex mu dem ku la nangam ku la nangam daa am benn xissa bu reelu bu ma ciy nettali benn waay la dafa tëdd ci bàmmeelu benn kilifa di nelaw mu jékki rek benn waay ak fi ko sëriñ bi soxna si day am na doom démb amaguma nag lu ma ngéntee mu ñëwoon di la ko ñaan ku sa jabar am doom doo dem nga liggéeyi pour ngénte léegi mu ñëw ci bàmmeel bi ne sëriñ bi soxna si daa am doom mu ñëwoon di la tinu pour nga may ma dof bi ne xilit yeewu jóg di ko xool ba ci yàgg taxaw ne ko hé maanaam mu ne ko sëriñ bi dafa am ko accidenté woon foofu la dem léegi bu ñëwee mu dimbal waa ji ne ko yow yaa dof mu ne ko yaa ma gën a dof yow mi ñaan ku dee xam nga tey ki ñu jàppee dof bi moo nekk nit loolu lépp ay misaal la yoo xam ne da koy dund pour mën a gis ni lii ñuy def ay naxe la borom bi nee na topp leen alquran maa ngi koy digal sama bopp di leen ko digal اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء أولياء موي لان اي ولي يلا de daa jamu اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ما أنزل إليكم من ربكم موي لان القران يلا نينا اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ينكو واو من ولا تتبعوا من دونه اولياء بولن فيتك القران توب كليفاي دي كليفاي دانيو نخه دي القران مولاي واخ دغ القران نيانو لا خالص لبو لا ديبونس ديغو لا دارا دالاي واخ رك لي بروم بي واخ مبوكي نيت دافا ورا جيل جيمم جوخ كو يالا توب يالا مو خم غور مو خم جيجين moo tax borom bi ne fa aqim wajhaka liddiini xanifa فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله من لن من ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله أكبر برم بني يو جلد بي جبل سبب تل يالا بغ توبال دين يالا جي مونو جوخ سانت نيكو تي لولو كات موي فطرة الله التي فطر الناس عليها يالا داف نيو بند pour ñu jaamu ko loolu la ñu bindee wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun borom bi nee na laa tabdila li xalqillah dalika diinul qayim walakin aksara nas la yaalamun mbokk yi su ma buggee bàyyil mbokk yi lu ñu taaliq ndax daanaka waxtu wi dem na presque li ci des matul 25 minutes li ma bëgg di ko fàttali ñépp mooy nañ leen góorgóorlu ci tawxid borom xam-xam yaa ngi fi macha allah jazahumullah xayran wa ayadahum yal na leen yàlla dëgëral waaye mbokk yi mbooloo yi ngeen fi yore fexe leen di am boroom xam-xam yoo xam ni dañ leen di jàngal nit day jàng diineem diine kenn du ko fooyee diine mooy oto bi lay yóbbu allaaxira oto nag ñaar a am oto bi lay yóbbu allaaxira ñaar la am na boo xam ne da lay yóbbu ba dem àjjana yàlla nañ ko yàlla boole moy borom xam-xam ahlu sunna bu bir li wax te lu wax leer na ñu teggu ko ci bakkanam lolu moy auto bi lay yóbbu aljana wattabi sabila man anaba ila man ilayya yàlla neena topal ki ñëw ci man bul top ku jëm ci mamam sama mamay waja sama baye nangam sama baye dedet bul top koku topal ko xamni li nga yor soxla wu ci dara dafa bëgg rek jubal la lool mo taxone yonenti seen mission seen liggey lan la won wama asalukum min ajr in ajri illa ala allah buguma ngeen jox ma man sama fay yalla ko yore seefa dalasi munul fay ken waye yàlla mo lay fay lan la lay fay aljana ma ngi len di digal lool kenn ku nekk ci yéen ne yëg ni kat la wara a doon ci yoonu yàlla wootekat ci yoonu yàlla day booleeg ngeen fexe nag di jàng téere yu am solo yi lu mel ni al usulu thalath qawaidul arba ngeen fexe di jàng yooyu fathul majid ba seen tawxid nekk lu sax di ngeen mën a nekk ñu xàmme lu bëri alhamdulilah borom xam-xam yaa ngi nii ñu mel ni ñoom ñu ngi fi di yee nit ñi soo dee jigéen nga am jafe-jafe bul dem ci jalang bi bul dem ci sëriñ bi ñëwal nga waxtaan ak oustaz dina la jox xel fan nga war a jaar وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله لك شيخنا الفاضل على هذه المحاضرة القيمة الذي يجب علينا أن نكتبها بماء الذهب ونحفظها ونضبطها في صدورنا حتى تكون لنا إنارة بيننا وبين ما يحبه الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاك وأن يمد في أعمالك وأن يرسخ قدمك على ما أنت فيه آمين يا إلهي في توعية المسلمين وفي بناء شخصيتهم شخصية إسلامية بارزة آمين يا إلهي نسأل الله أن يوفق ويوفق كل من يعتقد ما تعتقده وما تعتقدونه هو ما يعتقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم dañuy sant cheikh bi di ko gërëm wallahi ku xam yàlla mooy waxee nii ki nga xam ne dafa naan min yanaabiil nubuwa ki nga xam ne si bàllum yenent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam la sëgg naan ba màndi mooy mën a wax wax bi kon dañ lay sant bu baax di la ñaanal yàlla yàlla may la fan bu gudd donte ne sax nga ne africain yi fan bu gudd lañuy ñuy ñaan waaye dinañ la ko ñaanal yow parce sa fan bu guddee ñu bëri ñoo njëriñu jullit yi ñooy njëriñu askanu sunna bi mooy yokku kon ñun dinañ la ñaanal bu baax a baax jërëjëf oustaz oustaz li mu fi wax tey am na solo waaye nag li may def tey sama kàngam yi nga xam ne mu ñoom laay àndal bu dégg bëccëg kenn ku nekk si ñoom dinaa ko jox mu taaliq donte ne sax lu passé parce que oustaz wax na ne 25 minutes moo des léegi dafa mel ni dañuy jël 10 minutes si 25 minutes boobu ñu jox Cheikh ceebu xam si daqaay mu tënkal ñu parce wax bii ñuy wax nii da koy dund mën na kaa tënk si 5 minutes jox ñu results loolu dina ko mën su si paree beneen 5 minutes bi ñu jox ko al oustaz Moussa Diallo mi nga xam ne. moom it bay na waaram torop si wàllum sunna kooku tan ma jox ko beneen five minutes li ci des insha allah suñ mbokk soose yi ñu taxawal leen tuuti rek jox leen ko li ci des insha allah ñu def ko question and answer ak tamit waa HMD insha allah seen carte bi ñëw pour ba tey di Cheikh Baraloo daf ko war a joxe insha allah kooku tamit nañ ko may sonn minutes mu ñëw ñuy wax nit ñi di leen fàttali ne incha allah kees donation bi ma leen ñaanoon démb nañ leen te box baa si biti wallahi ñi nga xam ne ñooy tax ba ji di àgg fii ñooñu dañ leen war a support ki si def sa alal rek yàlla dina la fay yoon bu takku kon nañ leen génnee suñ alal si yoon yàlla su fekkee ne fecckat yi dañuy dimbalante si seen fecc ñun ñi nga xam ne nag dañuy raaj ci jëmale boor yàlla la lan moo war a nekk suñu liggéey mooy ñu génnee suñu alal ñu génnee suñu kattan ñu génnee suñu man-man pour mbootaay yuut si mun a dem si kanam xanaa xamu leen ne ñii ñoo ŋànk suñu jàmm ji suñu dëkk bi mbo façon mbootaay yi buñ fi manqué rek xamal ne si màpp la ñuy dem te yàlla ñu yàlla mosal si loolu kon donation box participité ku ku lu waay man rek mastata suma sëriñ mu daal di continuer bismillahi rahmani rahim jërëjëf al cheikh Omar Sall jërëjëf yal na la yàlla fay ñun ñëpp a dégg du fi sëñ bi nettali lan fi nettali yëpp comme ni ko gars yi di waxee tuktab bi maa i dahab suñ ko bind dañoo génn ndox ma gën a seer ndoxi urus bindee ko ngir lan dafa am solo lool yee nañu ci ñu nga xam ne dañoo fexe pour not suñu xel pour ñoom ñu dund yee nañu si ñooñu ñëpp ñu bàyyi suñu xel ñii dañoo saaga mag ñi ñi dañoo xas mag ñi ñii dañoo wax ne mag ñi dañoo dem safara déedéet mosu leen koy dégg nit wax waaye lañ bëgg rek mooy ngeen topp leen pour ñoom seen marché bi mën a jar wax nañu wax yoo xam ne ñu ñëpp ree nañ ngir lan ku dégg loolu wax yooyu nga xam tuuti si diine li nga xam ne lii waxe naxaate la nguurat yàlla gi moom rekk si nekk moom dor mooy dogal amul kenn koo xam ne dina dogal di ànd ak moom waaye jël nañ suñu xel ba nga xam ne gëm nañ ne am na ñoo xam ne balaa yàlla di def dina leen tàggu am na benn kaset boo xam ne siiw na si suñ Gàmbi fii si soose la koy wax waaw nettalil ko cheikh bi moom tamit dégg ko waaw kaset bi mu ne Cheikh Abdul Qadir Jilaani moo toogoon ak ay taalibeem di leen jàngal ñu toog rek mi gis benn taalibe baatam bi sëgg mu ne eleen eh kii dafay nelaw ñu ne ko déedéet sëñ bi kii niñ ko gisee nii dafa de niroog ne dafa génn at borom kase bi mooy nettali mu ne Abdul Qaadir Jilaan ne déedéet kan moo war a jël ruuxi xale bi te tàgguwut ma te xamut ne mu ne xanaa xamut ne yàlla subhanahu wa taala daf ma dénk ruuxi bani aadama yëpp mu ne noonu la Abdul Qaadir téene rek mu gis malakul mawt mu ngaa yóbbu ruux fekk mu ngi toll si asamaan yi ñetteel wala ñeneen mu ne noonu la Abdou Khader jógee rek jël mbubbam bi rek naaw topp ko mu ne Abdou Khader Jilaan balaa waa ji di egg wala malayka bi di egg si kanam yàlla mi gàttanu malayka bi rek dóor ko mbéj taa saar du yàw mos ngay dégg kaset bi <laughs> dégg naa ko trop loo si mis rek ma yokk ko mu ne ko ne Abdou Qadir Jilaani mu ne ko yow ku la sant nga jël ruuxi xale bi te tàggu wooma mu ne malaaka mawtu na ko yàlla moo ma ko sant mu ne noonu la Abdou Qadir Jilaani téye si mbubbi malakul mawti xomat ko ba si kanam yàlla mu ne ko fa in lam taarif nii fas al nii haada soo ma xamutee laaj ma kii moo yàlla fal bo kase do moy ja wallahi nga moy de tulu tulu lu be be la nga moy ni la ko waxe yu yu bari fi lol yamul fofu le yamul foofu dama ko bëgg gata ndax jarul ma gata yalla mu ne mu abdul qadir jeladi ne yalla ne eh. fay malon tele la man ya yaat la man sayaat eh wax na ba si kasse bi noonu la ko non ala kulli hal lu ñoo jénne si lii mooy tawxid ak sunna cheikh bi wax na yëpp desalu dara wallahi soo jàngee tawxid nga jàng sunna da ngay noppale waaye soo amutee tawxid amuloo sunna da ngay nekk koo xam ne sa dund si aduna du neex du sukur mukk ngir soo amee tawxid di nga nangu ndogal yàlla sëñ bi wax na ko fi waaye soo amutee tawxid lu la dal lu ndaw ndaw nga ne man xalaku naa di nga jóg di jenn di jóg di jénn fooy mujjee rek mooy perte yal nañu yàlla ya musal si perte cheikh wax fardu tawxid tawxid nu mu amee solo kenn du am tawxid te doo dugg àjjal xam nga loolu mooy ngëneel lu gën a rëy si nga am tawxid nga dee ak tawxid ak lu sa beri, bëri bëri bés dina jot di nga dugg àjjal waaye soo dee si bokkaale yàlla ak lu sa xasanaat yi bëri bëri mooy sa jëf yu rafet yi duñ bëri bëri yow doo mos a dugg àjjana innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna fu may tëje suma kàddu ibrahim du xam ngeen ibrahim xalilullah wattaxada allahu ibrahima xalila yàlla dafa jàpp ibrahima mi nekk xaritam xarit yowma alqiyaama ñu mhm. ne dina ak bayam mi ak bayam mi gis ne bayam kanamam ngaa ngi ñang ngir lan dafa jàq dafa ti mi xam suma baye ni dafa ti dafa jàq mu ibrahima ne bayam ne papa mu ne ko naan mu ne ko ndax waxuma la won ne nga topp ma mu ne aha kay waye bes ne ki tay dina la nango topp xam ngeen diggante baay ak doom rek deret bu dox seen diggante Ibrahima yërëm ko Ibrahima dellu yàlla mu ne ko yow yàlla ndax diguloo mu ne doo ma rusloo bés pénc yàlla mu ne ko bismillah loo bëgg a wax mu ne ko ana ban gàcce moo raw may gis suma bàyyi mii dem safara ñi ñëpp di ko seet xam nga lu ko yàlla ton yalla ya subhanahu wa taala daf ko joxeñal ajjana ku naa ya ibrahim gis nga kër gi ñuy wax aljana dama ko haramal kep ko xamne da fay bokkaale ya ibrahim non la ibrahima taxawé ñu ne ko xolal Sisuh suuf mi xol ci suuf ñu gis ne bayam suppali nañ ko benen ra mbeut ñu koy wota di ko safara legi man suma bokale bokkaale fan laa jëm man mantu soyal baayam te ibrahim Khalilullah bokku si ulul azm min ar rusul ta xettali baayam dede man man yunus bi alayhi salatu wassalam abu talib ndax mas musal nako ko safara déedéet ngir lan dafa dee ci lu wax bokale bon yalla ya musal si bokale képp koo xam ne bokkaale nga dee si bokkaale yow dafa niroog doo mos a dugg àjjana be faw yal yàlla musal si loolu sëñ bi si gàttal ñu ngee gërëm cheikh bi di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal eh, mi dalal jàmm delloo jàmm si njabootam fekk lañ si jàmm yàlla sàmm ko sàmm njabootam wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu amin yal na yàlla sa ñaan yow tam sa kàddu rafet na lii lañ xam ne loolu ngay dund incha allah duñ def dara lu dul ñu demaat si suñu beneen cheikh bi moom ñu jox ko five minutes mu yokk si muhaadara bi muhaadara bi ndeysaan buñ fi nekkoon sax ba ci eh, wokkloog garaaw parce que muhaadara bi façon muhaadara bi day gëj a am nit ñëw wax la tawhid ñukoy ñambaas tamit di ko gën a dëgëral maida bi boo xamee tiyaaba bi nga fiy jëlee doo sonn insha allahu azim te xam naa ne gisuma benn mandarga sonn seen kanam moo tax ma may damay jox sama sëriñ bi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci ay saxaabaam ak ci képp ku nga xam ne la ko doy mooy la fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyi moom ak ay saxaabaam ba balaa ñuy dajeeg borom bi jalla wa ala ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala danañu yàlla yombalal bés boobu nga xam ne du jaas dinañ dajeeg yàlla jalla wa ala نيجي نيجي سنو شيخ بدي شيخ عمر أحمد سال حفظه الله تعالى كدي رفدنا ولي ينون تردن انتوتي واي خمناني لب لفرد جنو القرآن جنو السن آه فما ينجي كيرك موي سنو مبك شكيبو شام جزاه الله خيرا وحفظه نتالي نيو أم صلو بيغا خمني taataane na ko muy tawxiid taataane na ko ci waxu cheikh bi jazahullahu xeyran waaye may fàttali cheikh abdul qadir jeylaani mu ngi nekkoon ci aqidatu ahlu sunna wal jamaa soo déggee qissa bi nga war a xam ne qissa batila moom du def loolu du ko wax te moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo jàngal cheikh al islam ibn taymiya rahimahullah soo delloo ci tirim boobu al istiqaama bi nga xam ne eh, ibnu taymiya moo ko bind mu ngi istidlaal bu baax ci wax yi muy jëlee ci abdul qadir jaylaani kon mu bëgg pour ñu fàtte ñu fàttale ko xam ne loola nit ñi ñoo ko fent teg ko ne abdul qadir jaylaani def na nangam waaye sori na loola benn ñaareel bi tomb bi ci bi may waxee mooy al ihtimaamu bi diin dañ war a suñu diine def ñu war a soxal diine def la war a soxal yow góor diine def la war a soxal yow jigéen ci biir soxal boobu mu lay soxal ci ngay am la ngay tuddee baabul infaq mooy buntub joxe ñun dañ am problème indi Gambie ñun bi ñuy jàng senegaal gis naa fa lu yéemu loo xam ne jéem nañ ko fi fekk nañ suñuy sëriñ suñuy cheikh yi tamit jéem ko fi waaye ba tey doxagu fii ñu nekk place bi ñu nekk am nañ fi benn bunt boo xam ne bunt bu aju la ci wàllu collecte dajale ay azaka waye buntu bi doxut te duñu wax ne Gambia amuñ ay borom yi alal déedéet ah kay ñu fi fees step ndax ndaxte ñom ñoy dem di la jëndal ben plate ben plate rare dina 50000 thousand te ñu amoon fañ ko wara duggal duñ ko fa duggal waye lamay wax fi moy yeen ñi tok ni moy goor ak jigéen bul xeeb joxe ci yoon yalla mbokk mi wax na fi sank lu am solo daawa bii nga xam ne moom lañ nekk di alxuraan ak sunna dafa tumaranke bam tumaranke nag lépp lu ciy dem day tumaranke moo tax day ajowoo ñu dimbale daawa ila alqurani wa ila sunna wifqa fahmi salafi hadihi al umma daf ko ajowoo kon su boobaa fépp fa ngay jëlee sa alal na ko bàyyi xel waaye jéemal la dugal sa alal ci lu am solo nañ joxe dee du tàggoo wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yatiya ahadakum al kon nañ joxe feneen fi may dem mooy tawxid muy wéetal yàlla dégg nañ ko ci waxtaan bi lool nañ ko jox gëddëm nañu bàyyi mooy ci caaxaan yi bàyyi mooy di déglu caaxaankat ñooñu muy ñu wax sànq fecckat yooyu ñu ngi fi place bi ñu nekk ay borom xam-xam ñoo ko séq mos nañ fee oo fecckat yooyu loolu wax nañ ma ko te du kenn moom ma ko wax du ñoom du ñaar te wax nañ ko fii tamit ci mbooloo mu mat bu rëy ni ngeen toogee nii mbooloo moomu di nekk ay duwaat ñuy woote ci yoonu yàlla ñuy wax ko seen kanam ne ñoo ñoom fi ño xamne dañuy tudd yalla di fecc waye nit ñi ñoo la ñuy gis ne ñoo ñoo leen di wax diine waye diine du fecc diine du fecc kon lima bugan bëggoon taxañ fi moy nañu bayyi xel ci suñuy pass pass nañu bayyi xel ci suñu aqida <coughs> dafa yomba faar te la koy lo dafa bari ñu nekk ci mujj ak jamono la lay fëkk génne la ci sa diine mu bari lool mooy ñëw ci ashkaal yu bari di jël forme yu bari kon da ko war a bàyyi xel su ko defee ñu toppatoo tawxiid gis nga toppatoo tawxiid bi moo lay mel ba Christmas doo ci invol toppatoo aqida démb dégg nañ ci tuuti ci conférence bi fële je serai waaye naka la nit ki di mën a waxee ne. yàlla ñetti la God the Son and Holy Spirit moom lam gëm moom trinity loolu la gëm yow nga ñëw nga gëm ne yàlla kenn la how can you mingle with that man how can you mingle with that person naka ngay mën a àndee kooku warta nekk waaye fii lañuy ñuy naxe mu lay bindal di la wax good year new year happy new year happy Christmas haki nangam barki dembu mang koy wax ci ben conference mané chris mass chegal word bi in english chris and mass what does that mean ndax yow lolu warna la concern yow as a muslim nañu bayyi xel ci suñuy fête nañ bayyi xel ci suñuy aqida ndax té dégg nañ ko ci waxtanu fi so génné adina yaangi andak bokale yu bari lu même su fekkee ne benn la am nga problème wa man yushrik billah même su fekkee ne benn la am nga problème bul nangoo dee wala na illa wa antum muslimun fi may jeexale mooy al ittiba nañu topp alquran nañu topp sunna nañu topp jaar-jaaru sahaaba yi moo fi nekk nañu bàyyi topp leneen loo xam ne dafa wuteeg alquran dafa wuteeg sunna ñay woote nag dañoo bari waaye dëgg ja mu ngi ca alquran dëgg ja mu ca sunna dëgg ja mu ca nga teg ko ci nu ko saxaaba yi déggee woon yal nañu yàlla may déggin booba yal nañu yàlla saxal jazakumullahu xayran wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu